parce que tey boo dégloo procureur euh, question yi muy def enquête yi muy def à charge te defu ko à décharge daf lay won ni y a une volonté manifeste. cest à euh, parce que tey bu ñu nee président Bougane ndax bi nga ñëwee ba gis dispositif sécuritaire da ngaa taxaw wala taxawuloo président Bougane ni leen man bi ma ñëwee dafa am ñetti policiers yoo xam dañu taxaw kenn ki dafa ma doon filmer keneen ki ñaari ñaar ñi dem di nuyu samay chauffeur ak ñi nekk ci biir oto yi xam nga kii taxaw ñu koy filme ak ki nga xam moo ngi dem di nuyu ay chauffeur oto yi daw mënoo nuyu chauffeur yi loolu cela va sans dire ngay toogaat di répété naan est-ce que Bougane dafa taxaw wala taxawul Bougane ne leen man daw ma parce que bu fekkoon dama bëgg a daw ma bifurqué seen kaw yaakaar naa ni kon ay mor doom la ñuy wax wala leneen ak leneen am na loo xam ni question de bon sens la beneen moom mooy gendarme yi nga xam ñoom ñoo ñëw fekke woon mbir yi dañ ñëw def des témoins à décharge maanaam lépp loo xam dañ ko waroon toppee comme lu jëm ci wàllu outrage wala refus d'obtempérer ak yu ni mel yooyu yëpp jàpp naa ne tey tombé na daanu ñi nga xam ne ñoo fekkoon mbir nekk ay témoins oculaires notamment ku ni président Thierno Bocoum ak ñeneen ñi nga xam ñoom la àndula muy euh, sécurité am ñoom ñëpp dañ def des témoignages yoo xam dañ ko def a décharge kon le président Bougane actuellement dafa weex tal comme neige beneen bi xamal na leen ni leen ki nga xam dafa yor convoie terrestre ak ki nga xam dafa ñëw par hélicoptère ñibbi par hélicoptère bu fekkee dañ def ci communiqué gendarmerie ni dañu war a arrêté convoi président Bougane pour xàllal convoi président Diomaye loolu dafay mel ni sax théâtralisation la ñuy def ci wàllu euh, justice te loolu dañu jàpp ni en 2024 avec l'arrivée de Diomaye bi nga xam ne dañ ko sax nax ci mbir yi wala liñ ko liñ ko informé informé ñu ko de manière juste et indiw nañ ko en erreur dama jàpp ni en 2024 waratuñu woon toll foo xam ni dañuy am un candidat investi ci benn list validé par le conseil constitutionnel ñu empêché ko mu war mën a dem battre campagne te loolu combat bu mel nii il y huit mois ou bien sept mois ci ginnaaw ñun taxawoon nañ dañ xeex lu mel noonu loolu moo ci bizarre taxawoon nañ ni euh, Diomaye candidat investi la validé par le conseil constitutionnel pourquoi war ñu ko mën a bàyyi mu dem battre campagne mais ku mel ni Bougane aussi candidat la ci élection yi validé par le conseil constitutionnel nañ ko bàyyi mu dem battre campagne am na yoo xam ay caaxaan la. quand est-ce yaakaar nga yaakaar nga ni affaire bi dina Bougane dina ci génn vainqueur. waaw xam nga tey euh, la politisation de notre justice tey boo gisee dossiers judiciaires yi ak dossier politique yi di mel nii day am euh, senteur boo xam ni. population dañ koy am à l'égard de nos justice euh, professionnels de justice ne dañuy am appartenance dañuy féete ni ñuy déroulé ci enquête bi ak ni ñuy waxee ak ni ñuy chargé daf lay wan ni il y a une volonté manifeste nuire à un opposant boo xam ni jàpp nañu dafa sonal le premier ministre premier ministre bu demee bay wax ni nee nañ ko coppet te dara xewul moom mooy ni que moom dafa utiliser des moyens non conventionnels pour empêcher un adversaire politique pour que mu battre campagne moment bi nga xam ne premier ministre mi ngi wër di wax naan gis nañ ci ay compte mille milliards procureur waroon ko woo yaa xayti mulaana te giñ nañ fi ne mille fois moins que ça trente milliards justice autosaisir dem jàpp ko ni ko na delloo trente milliards yi moom mu wax ni gis na ay comptes yoo xam ne la fa nekk ëpp na mille milliards mais c'est gravissime dans une république tey li ñu gis tey mooy la justice des vainqueurs justice des vainqueurs nag baaxul ci cim réew li muy indi moom mooy vengeance li muy indi moom mooy désobéissance li muy indi moom mooy perception bu négative ci suñuy institution te dama jàpp ni bu ñu ñëwee ba 2024 changement de paradigme war na am jubal war na am ci ñuy doxalee justice parce que dañ ko war a dénk ñoo xam ne dañoo jub dañ ko war a dénk ñoo xam ni duñu am duñu am benn coloration politique wala duñu am benn appartenance magistrat dafa war a denc biir réew mi muy appartenir à un parti politique wala muy xool loo xam daf koy def à la solde de l'exécutif loolu dama jàpp ni justice waru ci bokk parce que pouvoir la wax boo xam dañ ko war a séparer ak législatif dañ ko war a séparer ak exécutif. non ils sont dans la provocation xam nga li waykat bi di wax naan bu sosul ma ngay tooñ ci ñoom ci lañ nekk parti seen parti dañ ko sos dañ ko sos ci sos sos ko ci tooñ sos ko ci tuumaal ay gor sos ko ci wax lu dul dëgg loolu lañ loolu la ñu nekk ba jël nguur gi biñ jëlee nguur gi ndax nañu askan bi ni leen dañuy jël ay mesures sociales est-ce que yéen ñi sénégalais ban moo sentir ni mesure sociale boobu am na impact ci di vécu quotidien ban sénégalais moo sentir ni chômage bi am na benn solution bu ñu ci teg ban sénégalais moo sentir immigration clandestine mu teg ci benn solution ci sos yooyu ak nar yooyu ak tromperie ak manipulation yooyu ci lañ dem ut benn cabinet mu defaral leen benn référentiel pour ñu mën am ay éléments de langage pour campagne mais référentiel yooyu basé wul sur des concepts wala ci réalité sociologique bu sénégalais te la preuve tey nañ dem fii ak euh, cinq ans ngeen xool ñaan ñu ko yàlla réew mi dafay gën a tar parce que le pays est tombé entre des mains inexpertes le pays est tombé entre des mains yoo xam c'est des mais irresponsables des personnes yoo xam ne xalaatuñ ëllëg li ñuy xalaat mooy la prochaine élection la preuve ñu ngi leen di dig des monts et merveilles ñu ngi leen di wax lu dul dëgg rien que pour am une majorité à l'Assemblée nationale te ñun dañ jàpp ni li gën a pertinent ci proposition moom mooy lan haute cour de justice opposition moo ko war a taxawal gis ngeen bu ko opposition taxawalee du am sentiment de vengeance du am euh, chasse aux sorciers mais bu ko nguur gi taxawalee di ngeen gis justice yaa ma neex man nga faral duma la topp yow faraloog man dama lay dama lay topp dama lay xañ jant bi te loolu moom moo am te feeñ na rapport yi nga xam moom lañ fiy gis muy lëmba dëkk bi mais ana Mimi Touré est-ce que place am na nekk au représentant du président de la république Mary Teuw Niane rapport épinglé na ko Lassana Gagny Sakho rapport épinglé na ko tout récemment ñu ngi ñuy wax ci Azergate bi ñi wax ci affaire ONAS ñu ñi wax ci eurobond yi yooyu yëpp leeragul ñoom ñu bëgg wax naan dañuy taxawal haute cour de justice haute cour de justice li ñu war a def sénégalais te mu am pertinence boo xam ne c'est c'est c'est notoire mooy nañ fexe ba opposition bi am une majorité écrasante à l'Assemblée taxawal une haute cour de justice boo xam ne fépp xaalisu Sénégal nekk dañ koy dem jëli delloo ko Sénégalais. Moussa en France que peut-on retenir de de ce qui se passe à l'intérieur? Bon, euh, nous avons vu un procureur qui a euh, le comportement d'un militant de parti politique. Il est en train de de questionner à charge contre un candidat validé par le Conseil constitutionnel qui et qui devrait normalement être sur le terrain battre campagne comme c'est comme ses pères, comme ses camarades euh, de la liste Samoussa Kadou. Mais malheureusement, à notre grande surprise, nous avons vu une justice partisane, une justice aux ordres, une justice qui est en train de se dessiner et de se dresser contre des opposants. C'est ce qui est en train de se, de se passer. Vous dans vos propos que euh, des, des, des témoins ont Tous les témoins qui se sont succédé à l'intérieur ont été à décharge. Donc, les charges retenues contre le président Bougane doivent normalement tomber, à savoir euh, le refus de Pambéré, mais également outrage à agents de sécurité. Parce que le président Bougane s'est bel et bien immobilisé. Il même demandé d'arrêter le convoi le président Bougane a même demandé d'arrêter le convoi s'il y a lieu d'arrêter les véhicules de les mettre à côté il faut les mettre à côté et de marcher vers Bakel donc c'est ce qui s'est passé